Radio defaral sunu bopp Modou Modou yëpp bokk bokk ku ci jaaxle mbir nanga laaj Baye Diouf gindi la rajo defaral sunu bopp Modou Modou yëpp bokk bokk ku ci jaaxle mbir la asalaamaaleykum mbokk Sénégalais yi mbokk Gambien yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp mbokk ñu ngi di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di dellu si wax dëgg yàlla ci ci réew mi ñuy dund mi Italie te lépp loo xam ne euh, xew na fi war a mën a am impact maanaam influence ci niñ fi nekkee. wax dëgg yàlla rajo rajo defaral suñu bopp dañoo ñëw di ci indi tuuti xibaar pour yëgal nit ñi euh, li nga xam ne moo fi xew mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen wax rek suñu réew wax dëgg yàlla am nañ nouvelle boo xam ne neexuñu muy as jàmbaar ñu koy wax kër Sèye wax dëgg yàlla nag mu nekk suñ suñu xarit ñun rajo defaral suñu bopp surtout man mii Baye Diouf yàgg xa di sottanteeg moom ci problème yi diaspora wax dëgg yàlla euh, métit bu bari dal ko ba bés ni ki tey mu nga biir rëbës muy mbir nag boo xam ne rafetluñ ko dara ndaxte wax ji mu wax mbokk yi te yéen ñëpp ngeen déglu ko ci YouTube yi ba tax ñu mën koo téye denc ko jaru ko ndaxte dafa rek wax ne moom fonds yi nga xam ne Union européenne jox na ko Sénégal pour dimbali xay na xale yi ñu bëgg ñu bañ a euh, tukki bañ a jël euh, euh, gaal moom dafa waxoon ne xaalis boobu nguur gi dañ koo lekk moom Boubacar Sèye moo waxoon loolu waaye nag tuddul turi kenn ci wax jooju nag moo ko indee coono ba tey mu nga biir foofu ñuy wax rëbës muy lu metti nag ndaxte te lu ñuy luñ dul rafetlu la ndaxte wax dëgg yàlla euh, buuba euh, nit yi volonté la nit ngëm-ngëm la parce que nag ku bàyyi sa soxla yëpp dem toog Sénégal yàgg naa di ko wax ne ko li nga mën ñun suñ ko mënoon dañuy ñëw fekk si la ca Sénégal maanaam dañuy bàyyi suñu njaboot ñëw fekk la foofu nga toog ànd ak yow ci xeex bi xeex bi mbokk yi du ay dóorante du ay saagante xex bi du dara ludul doomu senegal ya nga nek xam ñu nek ci bitim rew gouvernement bi gën leen fonk gën leen japp nam ga amna ay pa yu ci gis waye nak euh euh bu euh, bo da doon xex pour mu ñu gën ko deugal ke ministre ci gouvernement bi poste ministère yi ñuy joxe ñu jox ci ministère bi yoré doomu sénégalais ci bitim rew mu nek ministère plein

day am des personnes de ressources yu ànd ak moom di liggéey mbokk yi donc ñu ngi lu loolu ñu ngi ñàkk rafetlu loolu di ñu wax nag toujours rek ñu li ñuy wax ci rajo defaral suñu bopp discours d'apaisement la wax apaiser di di sàkku nag pour que gouvernement du Sénégal mën bàyyi buuba mu dem këram ñàkkul ne lépp luñ koy topp dinañ ko ko mën a topp trop ba rafetul ñu jël tëj ko ca biir ndaxte wax dëgg yàlla buuba du criminel buuba du truand diffusion de fausse nouvelle lañ wax te wax dëgg yàlla loolu buuba ku koy déglu da nga xam ne nekkul ne loolu moo ko intéressé pour di wax loo xam ne amul te ndaxam lii mu wax tous les jours ay politiciens yi bokk ci biir gouvernement bi ak opposition yi duma ma wax tur lu raw loolu dinañ ko wax di ko jiiñ nguuri Sénégal te kenn musu leen jàpp kon nag Sénégal dafa mel ni wax dëgg yàlla soo nekkul politicien rek am doole euh, justice bi euh, daf lay day gaaw a daanu ci sa kaw parce que ministre de la justice ci bopp moom moo demandé ñu dem arrêté ko te loolu rafetu mbokk yi donc loolu la ñuy njëkkee tey balaa ñuy euh, dellu ci li xew fii ci Italie ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu leen sori ñu ngi ñëw. waaw mbokk yi pour dellu ci ci Italie yi gis ngeen su dernière émission làmb ji waxoon làmb waaw grand combat bi démb la woon wax dëgg yàlla parce que euh, wax dëgg yàlla gis nañ ne mbirum politique Italie dafa nuróo day nuróo trop mbirum làmb euh, lépp ci am la am ca làmb yëpp am na ci waaw titulaate bi impressionné bi diw bi waaw ñaan lu yi loolu yëpp am nañ ci mbirum euh, politique euh, Italie comme niñ koy waxee mbokk yi ñun Italie lañ dëkk donc lépp lu fi xew ci mbirum politique dañ ko war di ko caytu euh, itali wax dëgg yàlla seen politique ute naag réew yu bëri ci Europe bien que démocratie la nag fii démocratie la maanaam ko ëpp doole ci parlement ci ci assemblée bi ak ci sénat bi rek yaay am pouvoir bi donc euh, ci ay fan nettali woon na len euh histoire Giuseppe Conte muy le président du conseil parce que fi premier ministre duñ ko tuddee premier ministre président du conseil lañ koy tuddee bokkul ak nag président de la république président de la république mom arbitre le te député yeeg assemblée ño ño bolo falco euh mu président de la république waye mom nak doxalul mom doxalul rew bi mom lu muy xool ndax constitution bi euh, mooy arbitre daal diggante constitution bi ak doxali ni ñuy doxale réew mi ak politiciens yi moom mooy arbitre mu mu ngi tudd Sergio Mattarella moo mag la moo nekk ca euh, présidence président du conseil nag mooy doxal réew mi moom la ñu wooyee président euh, moom la ñu wooyee premier ministre lu mel noonu xam ngeen amoon na Sénégal diggante soixante ak soixante deux maanaam Senghor moo nekkoon président de la République Mamadou Dia nekkoon président di conseil Mamadou Dia moo doon doxal mais Senghor nekkoon ca kaw di arbitré mais yàlla def malheureusement affaire yi jiiñante coup d'état amoon 62 bañ jël Mamadou Dia denc ko fii nag loolu régime parlementaire la fii du régime présidentiel maanaam parlement bi fa la doole ji am te parlement bi ko fa am doole rek ñooy tànn ka nga xam ne mooy jiite mooy doxal réew mi mooy jiite gouvernement bi di doxal réew mi gouvernement bi mooy pouvoir exécutif bi ñoom ñooy doxal waaye nag gouvernement balaa muy falu rek doole ji mu ngi ko jëlee ci ñaari assemblée yi benn bi tudd caméra beneen bi tudd sénat mbokk yi donc xam ngeen li fi xewoon te nettali leen ko dëgg yàlla ñaari mbër <laughs> mbër yi tudd Matteo ku njëkk ba Matteo Matteo euh, Salvini xam ngeen ne moo ñu kon song ca deux mille dix 2018 2019 moo euh, Giuseppe Conte yàlla def Giuseppe Conte daanoon ko maanaam may pexem dal ba waji ji ci pouvoir bi te mënut a jot mom mu ak ay euh, euh, ay écurim ci écurim mu bolé ci nak ñu bari ñuko jappal parti démocratique mouvement Cinque stèles ak Leu muy Liberi et ugoali benen parti bu ndaw la. ñoom ñoo ànd ak moom jàppal ak Italia Viva bu Matteo Renzi kon nag bi Matteo Salvini bañ ko daanee Matteo Renzi ci ñi jàpp ñi ko jàppaloon waaye mbokk yi comme li ngeen ko xamee te nettali ko ci suñu émission bu mujj moom Matteo Renzi boobu rek dafa yeewu rek soobu euh, mbër mu mag bi muy euh, euh, Giuseppe Conte mu nekk nag combat boo xam ne ci juróomi fan wax dëgg yàlla lu nekk dégg nañ ci ku ci nekk di bàkku ku ci nekk ne kii moo mën Euh, naam gaa sax Giuseppe Conte moom waxal waxam bëriwul waaye démb ca làmb ja muy euh, Sénat njëkk nañ jaar barkaati démb demoon demoon ca assemblée ba muy euh, assemblée ba waa muy fi député yi nekk dëgg yàlla mu def fa discours bu rafet nag ba député yi jox ko seen baat li ci ëpp majorité bi muy trois cent soixante et une voix yoo xam ne jox nañ ko ko ne ko doxalal continuer doxal mu desoon nag Sénat bi Sénat bi wax dëgg yàlla démb la woon Sénat bi moom trois cent cinquante personnes ñoo fa nekk ñu moo fa trois cent douze personnes euh, sénateurs ñoo fa nekk maanaam soo amee cent cinquante six rek jàll ci ay voix muy euh, la moitié waaye tamit wax dëgg yàlla parfois xam ngeen ne ñëpp duñ teew euh, te am na tamit ñoo xam ne duñ njëkkati seen loxo maanaam dañuy abstention su boobaa dañuy compter voix yi voté rek ñi nga xam ne euh, képp soo ci ëppalee benn rek raw nga moom mbokk donc démb euh, euh, diggante combat bi diggante Giuseppe Conte la woon ak Matteo Renzi bi jiite parti bi ñuy wax Italia Italia dei Valori IV Italia Viva ngeen baal ma Italia Viva waaw moom noonu la tudd partem bi. wax dëgg yàlla ñoom ñaar jokkalante nañ konte euh, sax moom dëgërul sax xas ko lu bari waaye moo Matteo Renzi dafa buggoon rek konte dellu ci président pour bàyyi waaye nag konte deful loolu euh, wax ji yëpp xam ngeen ne ci plan xaalis bu bëri bi nga xam ne Union européenne jox na ko Italie moo indi wax ji waaye Conte nag ku yeewu la parce que euh, Matteo Renzi mi ko song peut-être calculé wu loolu loolu Giuseppe Conte dafa yore ay galgalam dencoon ko parce que nag xam na ne parlement Sénat ña fa nekk wax dëgg yàlla pour ñu daane gouvernement bi dem élection euh, duñ ko def ndaxte xam ngeen ne euh, sénateur yi fay payor bi ñuy fayu toll ci douze mille euro te su daanoo am na ñu bari ñoo xam ne ñu ci nekk fi nekk nii duñ <laughs> duñ nekk ci sénateur ndaxte nombre sénateur sax dañ koo wàññi ci prochaine prochaine élection bi dafa wàññeeku bu baax loolu mooy galgalam moo tax wax dëgg yàlla fexe na ba ci yeneen parti mu am fay nit yu ko jàppal lu mel ni Forza Italia muy parti ko Berlusconi am na benn jigéen boo xam ne dafa génn ci Berlusconi dem woteel ko ñaar ak beneen góor muy Polverini ak ci Comencini ñoom ci parti boobu lañ bokkoon te parti droite bi xam nga ñoom bugguñ bugguñ euh, euh, Conte waaye ñoom dañoo fippu dem ànd ak Conte ba parti bi ba nga xam ne ki jiite parti Berlusconi ci Sénat bi mu ngi tudd Tajani ci ci Tajani waaw noonu la tudd moom daf ne ñooñu dax nañ leen waaye mbokk yi yemul ci loolu rek Matteo Salvini tamit am na ñu ko jàppale woon ñoo ñooñu tamit rocce rocceeku nañ fa naa mu ngi toll ci ñaar ñoom dañoo rocceeku dem jàppal euh, Giuseppe Conte donc ay galgalam daal la Conte yore parce que xamoon na ne am na nu muy taxawee rek ñu bëri dinañ rocceeku ñëw ànd ak moom parce que nag ñëpp xam nañ ne di fayeeku douze mille euros par weer ñu daane gouvernement bi nga bokk ci ñu daane gouvernement bi te wóorul ne da nga faluwaat loolu ñu ci bëri bëgguñ ko loolu moom waxu ko mais am na ay <laughs> député ku ñuy wax ay sénateur comme ñi ay politiciens comme ki ñuy wax raat si moom nee na euh, Conté avant ñuy wote nee na Conté dina am majorité parce que ñi nekk ci ak euh, parlement bi ak ci sénat bi amul kenn koo xam ne bëgg nga ci daanu ndaxte surtout daanu payor douze mille euros par weer fekk nga yore ay bor ci banque yi loolu xam ngeen ne wax dëgg yàlla benn nit nag waaw du politicien yi rek waaye kenn du ci loolu donc mbirum politique donc lim lamb dafa bari kon nak euh, biñ paré euh, demb ci ngone ay 21h ay 22h30 ci la wote bi jeex euh, sur 312 sénateurs compte gagné am 156 sénateurs mo am 16 yo xamné dañoo wote wuñ yëkëti wuñ seen loxo moy ñi and ak Mathéo Rensi mu noppi mu am 140 yoo xam ne ñoom dañoo bañ ñooñu ñoo ànd ak parti droite bi parti droite bi nag muy ñetti parti muy forza italia bu berlusconi wax naa ko fii waaye aussi muy lega bu bu matteo salvini waaye aussi muy fratelli d'italia bu giorgia meloni moom jigéen la ñoom liñ sawaroon rek mooy euh, euh, liñ doon ñaan rek mooy euh, conte daanu Badia majorité bi ñun daane gouvernement bi dem élection parce que sondage yi dafa wax ne tey su doon wote droite bi mooy gagné ndax ñoo gën a am consensus ñoom la nit ñi gën a bëgg loolu nag wax dëgg yàlla sondage dong la euh, léegi nag wax dëgg yàlla ci biir waxtaan wi moom Matteo Salvini dafa mel ni euh, bopp bi dafa jaxasoo ndaxte xas na fi ay sénateur parce que seen Italie dafa am ay sénateur à vita ay mag la ñuy doon yoo xam ne président la république moo leen di noome ñoom kenn du leen wateel dañ leen di nommé à vie ñu nekk sénateur à vie maanaam ba ba ñuy génn àddina sénateur la ñuy doon bés bi ñu leen nommé kenn ci ñoom benn jigéen bu yàgg a xeex euh, nga xam ne ca jigéen fekkee na euh, loolu ñuy wax holo holocauste ñeen jàppoon ña Allemagne yi jàppoon ca deuxième guerre mondiale bi yóbbu leen ca Allemagne tëj leen fa moom ndaw soo suuf ca ñooñu ña fa rëccoon ca la bokk. waaw moom Liliana Segré la tudd wax dëgg yàlla quatre-vingt-dix ans la am euh, su may moom ak euh, beneen ancien euh, premier ministre ñu koy Mario Monti ñoom ay sénateur à vie tala maanaam a vie maanaam ba ba ñuy génn àddina ñoom jarutul kenn du wateel kenn du leen wateel ñoom dañu nekk sénateur ba génn àddina ñu bëri le en général président de la république moo koy nommé te su koy nommé day tonn ay mag yoo xam ne presque jaaxal nañ seen carrière waaye nag amaloon njëriñ eh, ñu na eh, ñu ràññee leen trop ci mbirum defar réew mi ñooñu wax dëgg yàlla Liliane Segré ak ancien président de république aussi dañ leen di nommé sénateur à vie kii ñuy wax eh, Napolitano nekkoon président de la république maanaam fi matériel Mattarella nekk ren moom moo remplacé Mattarella moom it sénateur à vie la waaw sénateur à vie foog foog naa ne su ma juumul foog naa ne juróom la ñoom nag ñu ci bëri démb euh, euh, ma euh, Conte la ñu wateel waaye Matteo Salvini dal ci ñoom ne leen ay sénateur avis yoo xam ne duñ deemu wala wala dañuy yéex a dee loolu nag waa assemblée bi waa sénat bi rafetlu wuñ ko démb ndaxte Liliane Segré bi nga xam ne moom quatre-vingt-dix ans la ba noppi nekk sénateur sénatrice avis bim dafa jóge fu sori malgré atam ak docteur sax néna kon bul dem mom dafa fipp dem wota ji te bim duggé ci Sénat bi ñepp jog jóg euh, ko waaye nak Matteo Salvini mi nga xamné mo bok ci droite bi extrême droite sax lay wax di xex Giuseppe Conte démb da ko sànni ay flèche te loolu nit ñi rafetluñ nak léegi mbokk combat bi wax dëgg yàlla euh, comme ngeen ko xamé Giuseppe Conte daane euh Matteo Renzi ba noppi euh, Matteo Salvini ak euh, euh, Forza Italia ak Fratelli d'Italia bu Giorgio Meloni ñoom ñu ngi fexe ñu ngi doon ñaan pour mu daanu waaye yàlla def ko mais nag ba léegi bàyyiwut ndaxte ñu ngi naan gouvernement bi doole bi mu am bëriwul te loolu normalul fi Italie loolu waxi kuy bañ la waxi opposition yi mbokk yi. waaye nag mbokk yi wax dëgg yàlla kon nag Giuseppe Conte mooy champion daane na ñaari Matteo yëpp daaw jéeg Matteo Salvini barki démb Matteo Renzi donc su ma yeboon ne daal mooy champion des arènes booleeg barki démb démb la woon euh, làmb ju mag ja tey mu yeewu delluwaat assemblée ñëpp ñu bëri wotelaat ko ndax mu def projet boo xam ne de 32 milliards yoo xam ne nguur gi da koy dimbalee liggéeykat yi Euh, liggéeykat yi nekk ci Italie ak famille yi euh, te loolu wax dëgg yàlla su ma yeboo ne cadeau boobu la génne mooy coupe coupe bi nga xam ne delloo na ko waa Italie yëpp delloo na ko travailleurs yi ak famille mbokk yi donc lii euh, lañ leen indiloon ci rajo defaral suñu bopp muy réew mi ñuy dund xam li fi xew wax dëgg yàlla moom lañ leen ñëwee baaxee suñuy wax nag parfois nit ñi. ni ñuy jëlee wax ji day xaw a euh, doy waar tuuti ndaxte euh, euh, ci émission bu njëkk ba waxoon naa impact bi nga xam ne gouvernement bu nekk am na ko ci mbirum këyit yi ñu bëri nag yaakaaroon nañ ne de tiitoon nañ yaakaar ne su Giuseppe Conte daano mbirum sénatoria bi nga xam ne jàll na day yàqu te loolu wax dëgg yàlla loi buñ voté woon la ba ba ba mu dee loolu amul benn gouvernement bu ñëw di ko mën changer xanaa rek li ñuy wax rek mooy ci gouvernement droite extrême droite bi suñ faloo euh, mbirum këyit yi ak suñ mbirum ndimbal yi nga xam ne nguur gi ñu koy def étranger ñoom dañ koy bañ bloqué ko ci foofu laa waxee woon waaye waxuma benn yoon <laughs> xalaatuma benn yoon ne sanatoria bi ak flux bi jàll ba pare gouvernement bu ñëw da koy yàq gouvernement droite bi su ñëw dañ koy yàq maanaam su compté daanoon ni kon beneen gouvernement bu ñëw da koy daane parce que nag loi loi la watt nañ ko ba pare ba koy exécuter kenn mënul fexe changer loolu mbokk yi donc li lañ leen indiloon di leen ñaanal jàmm di wax ne yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf depuis Milan di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon jërëjëf.